waaw comme ni mu bëree giri rek comme ni mu bëree giri da koy yokk rek lamb ku lamb ju nekk fam noo koy préparé ku nekk koy préparé loolu may lamb ku nekk am na nu mu koy bàll di ko préparé loolu moo si nekk xam na giri nu mu war a bëri xam na ko waaye giri Boy Niang la xam parce que giri Boy Niang bokkuñu poids waaw loolu moo tax comprendre ni war a bëri giri mu war a xam na ko li muy préparé Boy Niang xam na ko astafam dina ko wax loolu la ñu war a entraîneur dina ko préparé loolu dégg nga ngi dëkk Pikine Balla Gaye ngi dëkk Guédiawaye dama ne li prépare moom dañoo xam Boy Niang li muy prépare dañoo boobu ni mu préparé Gris loolu la préparé Gris mu préparé Gris baax na yàlla may na ko si ndam non loolu moom nag loolu moom mbër bee koy xam entraîneur am dina xam dafa war a yokk poids wala dafa war wàññi poids loolu entraîneur am ak physique am ñoo koy xam waaw combat moom boo ko jëlee combat moom combat combat boo jël sa bakkan nga siy tegar ndax kun daan nga rus combat moom ko jël sa bakkan nga siy kar da jaral lu nekk ndax yaa ko bëgg sa bopp day jar lu nekk. lamb moom kii gën a ñëw mooy diriger lamb ki gën a ñëw mooy diriger. mais ci gën yaakaar ci ñoom ñaar. non arbitre bi suuf rek nga xam arbitre suuf la gis ko ñeme gën a ñeme. gën a moo ne moo ne dañu fekk fu mu taxaw fekk ko fa. ah kon loolu kon noonu lay doxalee. Hmm. waaw bu xale mag hmm. xale bëgg bëgg ndam moom moo doon diriger lamb ji. waaw fu waay tax mu fekk ko fa ndax moom moo bëgg ndam hmm. waaw. kon Boy Niang moo war a ñëw def combat ci yoon ci yoon ndax moo war moo bëgg ndam. Hmm. moom mooy ñëw attaqué. ku si. ku ko ci con ñu ko ci conseillé. conseil yu ah. bari mën na ko ah. xañ combat bi. moom gëm-gëm la nit nit nit gëm boppam. ay conseil am na de waaye nit mooy gëm boppam. bu ne far mu ne ma bi dama ko def sama bët dama def kaani bi sama bët du ma xaar sa waaw boo xalaatee day safal du saf doo ko si def. mu mënee. ñu ku ne am na la nga mënee nga bëre ko. xeex moom dama xeex moom xeex xeex ab ku ñeme rek koy def xeex ab ku ñeme rek koy def ndax dóor a dóor dóor ku ma dóor nga dóor métti trop ku ñeme rek koy def. mais ñu naan gis nga ci koo xamante ne xeexam mën na mën na mën na kii morom ci. bala lam moom ku xeex ba jël ba jël ko moom da nga da nga mën waa nga tëdd. làmb ku moom xaju si kenn. fu la ko dóor moom ba fu a dal dëgg bu fa dalee te nga tëdd lamba demee noonu Eumeu Sène daan ko ñaari yoon kon Balla bu ñëwee moom moo war a pourfait boppam ndax Eumeu Sène daan ko ñaari yoon kon bu ñëwee war a pourfait boppam. pourfait. waaw ndax Eumeu daan na ko ñaari yoon. Mhm. moo war a pourfait. Mhm. mais est daan nga daan bëri deux fois tax na nga mën ko. waaw mbë xam nga at lamb lamb moom nit ñi daaw nañu bëre cinq combats. làmb ji nit ñi daanaka bëre cinq combat man làmb ji daan bëre daan ki ñaari yoon làmb ñu ne combat ba neexatul te làmb ji da nga gis gars cinq fois ay làmb yu neex ah. Mhm. daanan tey làmb yu neex. Mhm. waaw Balla Boy Niang ah, combat bu neex la ndax dafa doon combat xam ne combat revanche dafa daan rax Balla Gaye moo ko day ñëw prouver ne daan naa sa rax dama lay daan. combat ku nekk ku nekk da koy yenu ku nekk day yenu làmb ji Boy Niang du bëgg Balla daan ko Balla du bëgg Boy Niang daan ko waaw kon làmb ji ku nekk da koy yenu hmm. jàngat bi mooy question waa CNG lay lay lay lay balaame ndax jàngat bi mooy waa waa CNG ndax ñoom comprendre duñ ñëw ñu teg suñu simmikaay ñun njëkk lañ teg suñu simmikaay ñoom bu ñëwee war nañ war na war war nañ mën a nekk si beneen angle ba mooy yoon waruñoo ba ay 25 mètres loolu la làmb ji day jegante jegante boo xam ne après coow day am bu amee après làmb ji day yàqu te CNG ñoo ko ñu yàquñu ko ñoom ñoo koy yàq automatiquement da nga waroon jox booy victoire am waruñu ko waroon jox victoire ko wër na ko ndomb kële jógee fa ñoo yàq làmb ji da ko waroon jox victoire rapidement. mais jox nañ ko victoire. jox nañ ko victoire tey il faut nga il faut nga bind réclamation dem. ñu jox jox victoire c'est pas normal. làmb digg bi la moom su kon waa kii sax ñoo ko yàqoon voilà waa ne kii Papa Djiné ñoom ñoo ko yàqoon da nga ko automatiquement da nga ko waroon jox victoire am mooy yoon da ko waroon jox si yoon mooy amul waroon ñibbi sax dañ ko jox si victoire ak ba bi ñëwee. da ko doon jox jox ko victoire am. Hmm. fan la jëm Jacob. koo ko gisal comme adversaire non xale buy dem xale buy dem nga naan fu mu jëm. Hmm. kun ko jox rek mu jël. la. Hmm. taamul kii taamul kaa ko jox rek. mu jël jubóo moom rek ñu dem. loolu ma si nekk. non ñu xaar rek ñu ngi entraîné di xaar rek ku yàlla booleel ñu bëre moom waaw. ok su jaajëf maa lay jaajëf maa ngi ziar ñëpp di màggal ñëpp di màggal monde entier bi yëpp di ziar ñëpp ziar waa Touba waa Guinée Bissau waa Kolda waa Salikeñe waa Pakaw waa Birkama Ba Saare Yoba waa Guinée Bissau Sinthiang Ousmane waa Pikine waa sama grand mbow Ibi Diop sama doom yàq <laughs> sama rakk Tidiane <laughs> Ibi Diop ñoom ñu ngi lay ziar ñëpp di màggal ñëpp di ziar Sénégal ziar Pikine ñu ngi lay ziar baax di màggal ok nekkal jàmm jaajëf